ahousubillahi min a irajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen eh, jaajëfal ci topp gi ngeen ñuy topp ci Daaray Koki TV ñu ngi fii nag eh, ci eh, kokki kokki nag di dëkk bu yàgg lool sax ci taarixu réew mi comme niñ ko mën a waxee niñ ko sosoon ci atum 1725 jàpp 1733 ci sëriñ bu mag bu ñuy wax sëriñ Maxtaar Ndumbe Diop kokki nag génnee ay kàngam yu bëree bëri bokk na ci kàngam yooyu noonu moom mooy daaray kokki comme niñ ko mën a waxee niñ ko sosoon ci atum 1939 ki ko sosoon di alhaaji ahmad saxiir lo ñoom nag dañuy faral di amal chaque anne lu ñu tuddee rencontre annuelle muy ndaje boo xam ne ci lañuy ñuy dajale képp koo xam ne jaaroon na ci daara ji euh, ni koy amal ren ji nag incha allah moo war a nekk quarantième édition bi Euh, ni war ko amal incha allah ci le 26 bii nii muy le 26 euh, décembre 2021 tolloog dimanche bii di ñëw tey nag ci vendredi bi dañ leen présenté programme bi rek gannaaw bi ñu toppee xutba gi nga xam ne al imaamul akbar di alhaaji ibrahima loo mi ngi ko doon def léegi nii programme bi nag ni muy tëddee léegi nii si kanam tuuti incha allah dinañ amal ay panel panel yooyu noonu nag bokk na ci benn sujet boo xam ne tànn nañ ko mu nekk sujet bu am solo muy institut islamique de Koki réalisation et perspective maanaam institut islamique de Koki muy daara ji nga xam ne ci lañ nekk nii réalisation yi nga xam ne def na ko ak gis-gis yi nga xam ne moo nekk ci kanamam. Euh, panel boobu noonu nag danañ ci ànd ak euh, al oustaz Ahmed Diop mu war cee dalal docteur Ahmed Mokhtar Lo ak euh, oustaz Ahmed Diop Ahmed Lo. mi ngi war a am nag tey ci vendredi a tàmbale léegi nii incha allah à partir de 17h jàpp 18h30 ci plateforme yi comme ni mu waree. Euh, bu ñu paree ci loolu noonu incha allah ci euh, vendredi bi ba tey danañ amal beneen sujet boo xam ne sujet bu am solo la mu ñeel ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji muy association des anciens de Koki création et évolution maanaam ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji création yi nga xam ne moom la ñuy def ci seen i liggéey ak évolution yi nga xam ne am nañ ko seen i jàng wala seen i liggéey euh, panel boobu noonu tamit al oustaz Ahmad Bambalo moo ko war a amal léegi nii war cee jàkkaarloo ki nga ne mooy al oustaz Massamba Diop Massamba Diop na bu ñu ko waxee moom mooy ne moo jiite association bi nekk secrétaire général de Euh, programme boobu noonu nag tey ci vendredi bi lay am incha allah partir de vingt heures quinze jàpp vingt et une heures euh, bu tey ci vendredi bi suba ci samedi bi incha allah dinañ amal ay panel tamit encore euh, biñ ci mën a wax moom mooy sujet bii ni leen indil moom mooy le waqf et son rôle de soutenir les établissements islamiques ko Koki nag euh, kenn demul mu des mu am ci loolu noonu euh, ki war a def euh, panel boobu noonu moom mooy al oustaz Dame Khoule war cee ànd ak docteur Moustapha Wayel moom mi nga xam ne moom lañ dénk wax fu bi fii ci daaray Koki suba lay am incha allah ci samedi bi à partir de 19h15 jàpp 20h ni tëjee panel yooyu noonu ak panel bu am solo boo xam ne danañ ko amal incha allah ci le rôle des écoles coraniques dans le développement mu nekk sujet bu am solo man mi taxaw fii di Mouhamadou Amine Guèye maa ko war a présenté war cee ànd ak Alaaji As Ndaw ak Euh, Moubarak Lo mi ngi war a am à partir de vingt heures quinze jàpp vingt et une heures incha allah noonu la ñuy tëjalee panel yi euh, bu ñu xëyee suba muy dimanche boobu noonu incha allah ci la ñuy amal cérémonie officielle ndax daje kokki bu ñu ko waxee dafa war a am cérémonie boo xam ne moom moo koy mooy nekk cérémonie de clôture. cérémonie de clôture boobu noonu nag euh, incha allah dina tàmbalee ci à partir de 9h jàpp 13h ci teewaayu autorité administrative yi ak autorité religieuse yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bëgg alxuraan sapo safoo alxuraan di sopp alxuraan. comme ni ñu leen ko waxee nag euh, sujet bi nga xam ne moom lañ tànn ren ji muy euh, éducation islamique face au defi contemporains. ni ñu leen ko mën a waxee nag ndaje baa ngi nii yéen a ngi gis gars yi ñi ngi sama ginnaaw. ñu ngi ci préparation yi tey ci vendredi bi suba incha allah ci euh, samedi bi la ñuy yeggali dimanche bi nag lañ koy tëj comme ni ñu ko mën a waxee ak ñaanu sëriñ bi kon ni ñu leen di euh, jaajëfal bu baax a baax di leen euh, invité pour ngeen suivre suñuy ak suñuy plateforme yi nga xam ne moom lañ def plateforme digitale yi moo xam ci YouTube bi la moo xam ci Facebook bi incha allah.